Dakar Buzz TV waat nañu leen bu baax a baax am mbégte jàkkaarloo ak yéen nu ñu koy defee saa su ne waaye am mbégte également tey nekk fii ci Prince Arts dalal koo xam ne ah, doom la ci kër gi borom secret love Aïcha Koné kenn dootu ko présenté à travers euh, le Sénégal ah, ndaxte ñëpp xam nañ ko macha allah ci liggéey bu rafet bi nga xam ne euh, mu ngi koy def moom rek la ñuy daal di dalal Aïcha ñu ngi lay nuyu am mbégte jàkkaarloo ak yow dañ lay bàyyi nga nuyu ak internet yi lay seetaan. maa ngi leen di fay waa Dakar di kontaan aussi ci invitation bi merci beaucoup. alors temps yi moom dangaa xew yaa yore buzz bi yaa nangu buzz bi ci biir <laughs> Dakar Buzz maa ngi koy wax léegi ak génne nga single bu am solo muy euh, Secret Love nga dellu si ci Secret Love lan moo waral Secret Love bi bëggante bi la wala dafa nan la nan la composition bi demee ak ndax liggéey bi yomboon na. waa liggéey bi moom yombul vraiment liggéey bi yombul dañuy dañuy répéter jour yi tout le temps ñuy répéter tout le temps voilà day metti nag des fois surtout ñu ñi nga xamante ne en équipe lañ ko doon defee tout le temps lañ doon way en groupe mhm. nga war a ber sa daara war a way yow kase day metti des fois comme premièrement bi sax man mi sax dama doon joy dama ndax dama ñëw way rek sama baat bi càng et mais dalay dalay leen rek li lay xaar moo ngi ñëw quoi parce que mhm. avant ñu ko doon defee en groupe là tu te retrouves toute mhm. yow kase si kii bi metti woon na parole yi nag ñu def ko gëstu ko ak sa sama sama label ñun ñëpp ñu gëstu ko à l'aide de Bouba tonton Bouba Ndour mhm. euh, à Emina defaral ma son bi vraiment ñu jàppale ma si lu bëri ak sama fan yi tamit voté que ne ñoom way mbëggee lañ bëgg ma mhm. defaral leen ko. Mhm. voilà mooy loolu. composition bi comme ni nga ko waxee jàppale nañ la son bi ak yooyu parce que ni nga ko wayee moom euh, dafa mel ne loo maîtriser bu yàgg yàgg. alors euh, composition bi ni nga ko liggéeyee nan nan la demee ak euh, nan nga def ba lan moo tax nga choisir euh, boobu noonu lan moo tax nga choisir ko parce que am na yeneen son am na ay mbalax am na yeneen ak yeneen yow nga ñëw euh, jël ton boobu noonu. bon mbalax bi moo ngi ñëw parce que deux versions la. deux versions la te à la base mbalax bi moo waroon njëkk a génn. Mhm. mais dañu xool bi ñu constaté que bii tamit nice na te bii voix bi dee gën a génn te waykat tamit bu ñu waxee way bi voix bi moo tax. Mhm. ñu génnee bii pour une première incha allah demain ñu nar génnee mbalax bi voilà ñu choisir ko nag c'est parce que nit yi ñoo ko voté. parce que mhm. man lépp lu may def rek sama fans bu buñ ci d'accord dañ <laughs> voilà ñu buñ si d'accord rek ma def ko parce que ñoom laa am aussi ñoo may appuyer ñoo may jàppale ñoo may défendre si mhm. lépp voilà ñoom laa am mhm. nan nan kii bi benn benn couplet bu ndaw rek pour internautes yi waaye bi neex na de Rangati, Rangati, Yamai, Rangati, Chimbadumi, Maimelni, Kutagot Samasago. alors bi nga ko woyee eh, clip bi génn nice macha allah yan nga tuur nga njëkk jot. voilà jot naa ay retour si samay fans gis naa vraiment ñi ñi di ma wax que woy bi touché na leen mhm. surtout xale yu ndaw yi di ko woyaat et tout genre ça me fait grave plaisir mhm. euh, artistes yi aussi yónnee ma message félicité ma et tout mhm. vraiment ça fait plaisir. Tata Ngoné wax. ah tàngu ne moom tàngu ni moom mooy nekk ak ñun tous les jours. Mhm. bu ñuy dugal waaye bi ñoo koy dugal mais mu génnee ba nit ñi commencé apprécier ak yooyu am na am na loo xam ne. wax moom waaye moom moom moom dafa fan doomam yi. Mhm. sa ku génnee way rek moom way boobu lay jël moom lay déglu di ko teg si oto yi et tout genre di wax way bi neex na way bi neex na. Mhm. voilà c'est notre maman. d'accord ñu ñëwaat sa intégration ci seen euh, Petit Galle gis nañu ko bi nga nekkee ndaw nga fi ñëw ba léegi bokk ci seen Petit Galle All Star yi passage boobu yëpp sa intégration ak yooyu euh, naka la demee. voilà seen Petit Galle nag dama ci dama ci participer à bas âge ma jóge Mauritanie ñëw mais j'ai toujours voulu participer. ma participer si nag pour une première fois mais dama ñëw fekk présélection yi jeex. Mhm. du coup je suis retournée c'était en 2013 je suis revenue en 2014 peut-être yàlla dafa waxoon 2014 laay bokk. Mhm. et mhm. après ma participer ñu repêché ma ma ñëw nag ba remporter euh, seen petit gala en 2014. mais sa intégration est-ce que yomboon na ni ngeen di dundee parce que boo ñëwee euh, jóge fenn am sa jikko ñëw fekk ak yenn xale yoo xam ne bokk leen fi ngeen yaroo bokk leen ay habitudes ak yooyu ndax intégration bi ak nekkin bi. yomboon na. voilà comme ni nga ko waxee rek du dina yomb na parce que ay xale lañ woon xamuñu woon dara. Mhm. genre dañu tolloon ci ñuy jubbanti nga def lii ñu ne lii baaxul mais ci ñi mu gënoon metti mooy ci ñi nga xamante ni ñoo ñu doon jubbanti. Mhm. parce que dafa metti nga gis kii jugee Louga kii jugee Ndar kii nga jugee fi ku nekk ak yar boo xamante ne bokkul. Mhm. nga war leen ñoom ñëpp nga tegaat leen ci yoon mais parents yi nga ne sax ñoo bàyyi seen doom yi ñoom ñoom gis nañ bu baax que ne xale yi bu ñu ñibbee ñoom ci seen boppam ñoo leen di woowaat wax leen remercier leen mm-hmm. ndax jikko biñ fa jëlee et tout mm-hmm. vraiment expérience bu baax la expérience bu cool la. seen petit gàlle lu mu la apporté. waaw man petit gàlle rapporté na ma lu bari par exemple sama njàng gën nañu continuer sama jàng publicité yi ma rapporté mm-hmm. vraiment teg ma si yoon bu baax li ngay def wala lii ngay def euh, je peux dire que maman Ngoné elle a été notre deuxième mère. fu suñu yaay yi taxawee ak suñu papa yi rek mu ñëw taxawal ñu foofu noonu alors seen petit gallé c'est pas tout simplement les vacances wala yooyu noonu mais même si année scolaire bi lépp lu ñu soxla da koy jël sax école buy tijji day dem voyager pour jëndal ñu ñun ñëpp ay yére pour juste ñu bañ a manqué dara yére yi ñuy jàngee moo ñu koy jëndal di xool parce que moom élève dafay veiller tout le temps si yére yi ñuy sol mu baax bañu amul dagg-dagg wala dara mhm. day woo suñu lay jëndal yére bëggul nga manqué dara et tout. d'accord ñi nga xam ne dañuy wax xam nga yaa ngi koy wax léegi am nga chance boobu yaa ngi continuer sa étude yaa ngi def li nga xam ne ah, moom mooy musique ñenn ci sénégalais nag ñu bari ñoo ko wax ah, du samay kàddu ñu ne Sen Petit dafay pervertir xale yi parce que gis nañu ñoo xam ne ay scandale tudd na leen ci ñeneen ñi après dañuy commencer foog ne ay star la ñu leen neex la sol leen neex la ñuy waxee loolu noo ko jàngatee. ba mais c'est normal parce que Sen Petit Gallé dafa bëri participant. ñi ci bokkoon dafa bëri alors du ñëpp rek ñoo nga xamante ne ñoom ñoo ci ñëw ñu mucc te ay xale lañ aussi genre du tey dañuy juum et tout mais jusque bu ñu juumee ñoom ñu gàgganti leen voilà mooy loolu mais petit ñun ñi nga xamante ne ñoo fi yàgg. Mm-hmm. ñun ñu fi nekk à ce que je dis. yéen gisoo leen ñu ci lu bon. Mhm. doo leen gis ñu nekk si lu bon. Mhm. alors je peux dire que la plupart ci rumeurs yi fi muy jugee mooy ñi nga xamante ne deux semaines lañ fi def. am amul li ngeen def tam ñu leen koy nëbbal ci seen biir ñoo xam ne comme dañu nekk yéen fi ngeen nekk bu ñu leen feeñee nañ leen nëbbal tuuti. tàngoo ni amul kenn ku muy nëbbal boo xoolee bu baax sax amul kenn ku muy nëbbal moom elle est direct mhm. moom am na looy def nga ne nga nekkoo ci yoon sax nga def loo xamante ne waroo ko def. elle te sort parmi les enfants. Elle te le dit que tu sois talentueuse que tu chantes bien. Mhm. nga am tous les talents que tu veux moom xale bu correct lay garder. Mhm. nga correct ñu mën a kii wanteeg yow saafanteeg yow mu nekk ak yow. Mhm. mais petit gars dafa dem nag ba mu nekk loo xamante mën nañu wax sa sant la. ndaxte ku fi def benn jour sax boo génnee da ngay naan seen petit gars laa jugee. alors kooku nga ñëw def fi deux jours wala trois jours koo xam mën nañu la yàq. léegi boo nga def li ngay def on te dit seen petit gars que émission bi gën a mag la ci Sénégal.

ñun kii Moustapha day woy woy bu neex bu daaneel ñu kii woy Nafi woy bu neex genre mën nañu wax ko ne suñu bii dañu faawante. Mm-hmm. kii bu wayee way bii ñu ne ko waa booy na mën woy booy yaa ma parce que ñun fu ñu toog sax ñun suñu biir du ñu wax beneen waxtaan bu dul musique musique mooy suñu àddina. Mhm. toog waxtaan affirmer harmonie bii mais Youssou Ndour li mu def nii wala dàngam wala sàngam. Mhm. tout le temps c'est comme ça amuñu temps bi nga xamante ne dañ koy def pour di di bon iñaanante suñu biir parce que dañu dem ba comprendre que ne ñun ñoo mën a ànd booloo pour mën a. Euh, pour mën a am lu bëri si si suñu carrière bi ñu bëgg te si une famille aussi. Mm-hmm. alors ñu leen di félicité waat bu baax ci euh, way yi nga xam ne mooy single yi nga xam ne génne ngeen ko di wax ngeen ko suba tam nee na am na version mbalax ci Secret Love nga xam ne Aïcha moom euh, way na ko ñu ñëw sa diggante ak ki nga xam ne mooy Youssou Ndour gis nañu dafa mel da ko faa de. waaw ah, dama ko fan trop sax <laughs> dama ko fan trop sax parce que voilà c'est en référence. référence bu mag la mhm. euh, si par mi boo xoolee jaar jaaram jaar jaaram sax da lay gën a may force mhm. booy xool di gëstu ci ay woyam te lu mu woy rek téere la mhm. des fois da ngay nekk ci ay période benn moment nii sax mu génnee benn woy wala nga déglu benn woyam da ngay naan mais attends kii xanaa woy bi dafa nekk ji sama situation moo tax mu nekk di ko woy c'est en référence képp ku ko topp ci musique sénégalaise xam naa ne doo mës a nekk ci tànk yu bon. Mhm. Mhm. sa diggante ak Tata Ngoné mi yaay bi mu nekk ci ak la conseil est-ce que am ngeen yeneen relation. Tangoné sunu lépp la du yaay dong. Mhm. sunu xarit la sunu lépp la. fépp la ñuy taxaw man vraiment fépp lañuy taxaw financièrement te dafa nekk nit koo xamante ne nit ku jullite la. mën na la defaral. mën na la def lu nekk ay waa këram sax duñ ko yëg. def ñu boole ci boppam bañ na ko sax ba maam nday soxna boobu sama maman ñooy sama maam ñoo ngi koy nuyu waaye de passage mm-hmm. moom ci boppam dafa dem ba def ñu ay sëtam ñoom ñëpp ci famille bi ñu def ñu comme seeni mbokk mm-hmm. genre fête yi des fois koy passé ak ñoom parce que loolu bu ñu demee ba am place boobu tàngoone moo ñu boole ci boppam dugal ñu ci vie wam ba ay mbokkam mun ñu dugal moom ci boppam ci ab vie wam mhm. c'est une personne extraordinaire ndeysaan booy wax ak moom sax say booy <laughs> yow ak boobu am ngeen relation tonton Bouba Ndour waaw tonton Bouba sunu sunu daf ñuy jàppale si lu bëri mhm. daf ñuy jàppale si lu bëri si ay conseils par exemple secret love bi moom moo si def na ci def ci participation bi moom moo ko joxe mhm. tonton Ibou defar ko defaraat parole yi ak yooyu noonu voilà. d'accord xam nga Aïcha nit ku ne nit na tey boo déggee rumeur yi ñu wax si yow ñuy wax ci Moustapha ak yéen comme vous êtes une famille. Mm. te rumeur moom du ñàkk. ndagam ñi nga xam ne amuñu bës sax dañuy wax suñu massa ak yéen ñi nga xam ne. Mm-hmm. Euh, ñëpp xam na leen sa famille nu koy dundee parce que parfois di nga toog xanaa ñu wax dara lu metti sa yaay woo la sa sœur wala koo xam ne sës na ci yow nan nga koy dundee en tant qu'une personne normale. bon man genre ñoom loolu mën nañ ko bañ a jëlee dara peut ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci un peu partout ci dëkk yi ñooy mhm. woote di laajte ndax dëgg la walla dara mais man pratiquement sama yaay mhm, sama yaay daf ma xam bu baax parce sama yaay sama jumelle. Mhm. moom lépp la ma man du dugg ci lu ma waxul sama yaay nit ñooy taxaw wax Aïcha Koné moo ngi fii Aïcha Koné ma Aïcha Koné du sax génn këram gisuñu ma ci boîte yi. dew ma si ay appartement doo doo baali ay ay ni ñu ko waxee piscine parteeg yi nga xam ñoom Seydou ñoom xale yi ñoom. am dañ ci dem bu ñu xoolee bu baax sénégalais yi bu xoolee bu baax ñoom mënuñu la wax ne fii lañ may gis si ay. Mhm. boîte piscine party wala dara mañ na ko ba sax man samedi je suis chez moi parce que je vis avec ma mère. Mhm. du coup moom ñooy nekk tout le ah, temps kon ci xale yi ut. appartement nga xam bu ñu amee succès ñaar ñett yooyu dañuy dem dëkk ñoom kese. man de bu ma utee appartement ba sama yaay tàngoone jàpp ma fii dañ may rey te avant tout sax du sa yaay rek nga ci xalaat ak tàngoone mais sa bopp ci boppam. Mhm. parce que certes nit mun nga wax que ne damay xool ci lii ci sama yaay. xool ci lii ci sama papa wala xool ci lii ci tàngoone mhm. mais bés bu xool boobu jeexee yow danga nekk ci la la neex mhm. lenn rek moo lay tax nga am fulla am fayda mooy ni nga xamante ne yow nga jàppoon que ne man mii kenn du ma yeb man je suis une femme te dama war a respecter samay principe mhm. dama war a liggéey c'est pas parce que damay dama yaakaar dara ci nit. Mhm, te war nga am njaboot ëllëg ak euh, mais nag rumeur mënul parce que nit d'habitude dañ lay gis rek ni ñi dañ leen di jugé et tout mais l'essentiel moo ko xam nga ki nga doon te lenn moom xam naa ko mooy que on peut dire des rumeurs. Mhm. mais juste ci ay wax a dégg xoolaat bu baax yow yaay kan lijjanti bañ kenn mën a euh, di di di wax ci yow lu ñaaw lenn moom je le mooy que ne nit mën nañu wax si man. Mhm. wala ñu toog jugé ma nii nii nii nii mais duñ ma gis ci lu ñaaw. Mhm. ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy wax doxuñu ma ba gis ma ci boîte yi. Mhm. doxuñu ma tamit ba gis ma ci ay anam boo xamante ne anam bu ñaaw la. man sama routine sama liggéey la. maa ngi liggéey xool nu may terele sama waa kër. bu ma liggéeyiwul maa ngi sama kër bu ma demul jàngi maa ngi prendre sa c'est mes peut-être nag je suis j'aime bien m'habiller. Mhm. poster waaw da nga mën a sañse nag TikTok bi yaa ngi koy wàcc de. <laughs> dama loolu c'est dama passion la pour man damay habillé wu ma toogee maa ngi xool si internet bi. Mhm. yëre yuy rafet yu ma mën a jox sama clientèle et tout photo wu poster c'est toute ma vie ah mais à part ça je je suis pas dans tous les bails comme ça. Euh, wax na ci li nga xam ne moom la nekkee sa relation ak yeneen artistes yu mag yi parce que xam nañ ne yaa ngi ci milieu euh, jeune talent yu ndaw yi ak ñoom tu veux. ku ci mel ni kan ak kan. Euh, ku ci mel ni Dieyla ñoo bokkoon édition. Mhm. et tout ñëpp comme ay ñoom Astar c'est mhm. une sœur. voilà ñoo ngi préparé sax dara. Mhm. voilà leneen ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp. sunu suñu ay sœur lañ buñ gisante ñoo ngi ci terme yu baax et tout. ngi déggante Wally sa xarit la. bon Wally sama benn tonton la rek. parce que voilà jabaram dafa baax. Mhm. je ma rappelle en 2016 bi may ñëw ci seen petit gàllé moom moo ma joxoon ay foulard yu ñu bind ay choconé. Mhm. elle m'a beaucoup appuyé soxna ay dara ma koy nuyu de passage. Mhm. voilà moom tam mu nekk wàllu wàllu du su du je vais pas dire particulièrement à moi. mais ñun ñëpp def ñuy encourager genre dañu wax ay xale ngeen nii ngeen wala def nii vraiment taxawee na. taxawu mag comme un frère. comme un frère mag nu mu mun a taxawee. wala voilà. effectivement li nga interprété eh, wayu moom yi boobu noonu mu nekk lu neex loo xam ne euh, nekk na sene neex na Sénégal yi euh, woo na la félicité na la. bon ñun euh, Tangone la félicité directement pour pour li ñun ñëpp way yi ñu way parce que ñun ñëpp interprété ndoo way bi. Mm-hmm. mu mu félicité ñu te fu mu tasee ak ñun tamit All Star yi. Fara ni la ñuy woowee <laughs> voilà nuyente ak ñun genre vraiment c'est quelqu'un de bien en plus il nous donne des conseil il apprécie. Mhm. alors à part way bi yi nga xam ne yaa ngi débuté sa carrière solo comme ni nga ko commencé léegi nii di def tam ci li nga xam ne mooy jënd ak jaay mooy la toute publicité bu ndaw balaa DG di ma di ma di ma di ma fayloo. lan nga envisagé waat def loo xam ne yaa ngi jàng yaa ngi sa troisième année lan lan lan la Aïcha. ay ay projet Aïcha lan la. bon man sama projet mooy li nga nekk di wax ni jënd jaay j'ai beaucoup de projet par rapport avec la musique avec aussi euh, liggéey bii nii ñu nekk di def. Mm-hmm. muy sama marque. voilà j'ai beaucoup de projets ci affaire u marque parce que dama bëgg def loo xamante ne fii sénégalais buñ ko jisee dinañ fier ñu ne Ali ah, ay Koné moom moo ko def te suñu doomu réew la sénégalais comme mauritanien parce que ñu ñaari dëkk yooyu man ñaari dëkk yooyu laa am mooy sénégalais mauritanienne mauritanienne voilà mooy loolu buñ ko gisee ñu xam ne kii kat suñu doom la defar loo xamante ne ci dëkk bi la jógee mën a dem un peu partout dans le monde ak musique bi aussi yóbbu ko foo xamante ne ñu gën a liggéey yóbbu ko foo xamante ne dina gën a sori. macha allah yal na yàlla jàppale ci loolu te mu nekk sa njiglaay mais lu ñu laaj mooy euh, jigéen ñi ci euh, wàllu jigéen mënuñu toog ak yow te duñ laaj ci loolu dañu gis nañu bari dañu ne nañu euh, mooy yi nga xam ne mooy viol ak lu mel ni ñu criminaliser li nga xam ne moom mooy viol ci Sénégal gis nañ fi élection mi Sénégal coow li nga xam ne ànd na ko fi ci ñu bari ne loolee dañ ci wax a jóg ko ànd ci ay taxawaay ndax gis nañu sax assemblée nationale voté na loi boobu ne ku violé Euh, euh, viol bi loolu la moo ci sa xalaat ak jigéen ñi nga xam ne ñu ngi leen di violé ñu koy noppiwaalee bañ ko wax ndax gàcce wala rus wala am ci yoo xam ne ñu ngi koy xool ci seen ay parents. non loolu moom vraiment man bu ma ko gisee sama xol bi day mel ni lu ñuy dagg vraiment parce jigéen bu nekk jigéen nga jigéen. mooy yaay jigéen mooy rakk jigéen mooy lépp mm-hmm. am na yoo xamante ne waruñu ko sax néeg def jigéen ñi voilà je suis parfaitement d'accord avec eux parce que viole dafa metti ki ñu def leen ko ñi nga mm-hmm. xamante ne sëgam yow mi nga xamante ne yaay toog sax di imaginer léeg lii dafa metti mm-hmm. asamaan ñi nga xamante ne subir nañ ko vraiment on est parfaitement euh, avec vous ñi nga xamante ne ñoom lañu violé bu leen ko toog bu leen ko noppiwaal yi génnee leen ngeen wax li nga xam moo nekk seen xol anyway on est toujours avec vous les femmes ay Aïcha am nga borom kër. non amul borom ah, kër looy xaar macha allah ak ni nga jekkee nii amul kenn kuy fëgg. <laughs> non moom maa ngi maa ngi maa ngi si musique bi fi mu toll nii moom maa ngi gën a. tal sama carrière amagoo benn projet pour pour pour bëgganteeg yooyu. wala tataangoo ne moo ne bul bëgg kenn. non mais jigéen xam nga jigéen bu nekk jigéen la ñun ñëpp mhm. li ñuy ñaan yàlla mooy que ñu dem ba ñu sey et mais pour le moment moom mhm. je suis beaucoup plus coachée sur. sama avenir. Mhm. pour parce que j'ai toujours voulu être une femme indépendante pour bañ a pour bañ a yaakaar ci kenn. Mhm. bañ a jox kenn voilà wax ko ne lii nga may defar jouer lépp loo xamante ne ma am ko ma gañal ko sama bopp moo tax actuellement maa gën a scotché si sama liggéey mais nag ay jigéen lañ tôt ou tard dinañ dem sëy. mais ñi commencé bëgg léegi dañuy xaar ci kanam. ah. <laughs> <laughs> ah. lépp mën na nekk. yàlla baax na léegi kii ñëw moom nan nga nan nga bëgg mu mel da nga bëgg mu jullite ku am xaalis xam ñu ci bari dañuy wax ne sa genre bu amul million moom doo doo doo doo. <laughs> non même pas non même bi ngay rêvé nan nan nga bëgg mu mel. non personnage nit ki rek moom mooy compter ci àddina nit ki jikkoowam rek moom mooy compter parce que àddina bi ñu nekk léegi moom dafa tas. Mhm. góor yi moom mooy noonu. léegi voilà ñu ñaan yàlla rek tôt ou tard ki ñuy tasee suñu àddina doon ki gën ci ñun mhm. déjà. moom moom <laughs> merci beaucoup Dakar Buzz merci Ngoné ah, vraiment c'est gentil de votre part kontaan nañ ci invitation bi di nuyu ñëpp di nuyu sama sœur Bambi mhm. à une sœur boo xamante ne elle m'a toujours aidée surtout mhm. elle a vraiment elle compte vraiment pour moi mhm. di ko nuyu di ko bisou partout vraiment alors ñu sant la bu baax Aïcha Koné un plaisir la woon pour ñu tey ji ñu dalal la di gërëm soxna Aminata mi nga xam ne sànq ba tey mi ngi toog di ñu surveiller mhm. jotaangoo ne moo ko ne demal balaa ngooyu di fa toj kaas <laughs> di gërëm sama ñaari caméraman yi Seydou ak euh, Amadou sant nañ leen gërëm leen beneen yoon ak beneen invité ci biir Dakarbuzz TV